Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu gën koo xam ci Moustapha Gueye 2 al aalimul allaama abonné leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bës cloche bi yokk ñu tuuti sens an nga bës fii ñu bind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 wante julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, noo ngi ñëw yéen seen téere bi nga xam ne mbaaxoo ngeen koy ànd ak ñun muy téere al akhdari wu Cheikh Abdurahman al akhdari wi eh, nga xam ne ñoo ngi ci buntu wu mujj ci téere bi muy baabun fii sujudi sahwi muy bunt wi moom la tëjee téere bi di al akhdari moom Cheikh Abdurahman al akhdari mooy bunt woo xam ne ndongo bu ko góorgóorlu ba xam ko yeneen téere yu guddi yëpp bu ci demee rek dootu sonn ndaxte téere yooyu seeni buntu woowu bu ñu ñëwee dañ koy résumé wante Cheikh Abdourahman al Akhdar yi lu mu yaatalee bunt wile fekk ko ci yeneen ulamaaw yi doylu gi ñu doylu nu mu ko yaatalee ak rafet gi mu rafet moo tax duñ fa nekkaanat di yaatal dañ koy résumé moo tax mag ñi ne ñu xamoon njàngale leen moo boo demee seen majalis yi al axdari ngay njëkk jàng teg ci al ashmawi teg ci muqaddimatul izziya teg ci matnu risale ibnu abi zayd al qayrawani teg ci misbaaxu euh, misbaaxu salik ila axiri rek boo topp tartibee téere yooyu la weneen woo dem rek bu fekkee la nga njëkkoon jàng dégg nga ko doo am jafe-jafe ci la nga jàkkaarloo wante tey Cheikh Abdurahman al Akhdari mu ngi jàngale masala wu ñuy wax lam yafuuta bu ma waxee na lam yafuuta nag mooy ndongo yi dañ koy faral di laaj ana lan mooy masalam lam yafuuta man di leen a jafewut sax wante ñoom ñoo ko nar a jafeleel seen bopp wante masala woo xam ne comme ni nga xamee ne depuis ba mu commencé bunt bi bi fu mu toll masala yi ci rotal noonu la lam tàmmeel te léegi ndongo yi bëri ñoo ko nar a jafeel seen bopp wante déglu Cheikh Abdourahman al Akhdari nu muy traité masala woowule wante yi jàngoon nga muy wax ne képp ku fàtte ne benn sujjóot mu fàttali ko benn sujjóot gannaaw ba mu taxawee ne jodd ah, atte wo mooy dafay dellu Eh, sujjóot benn sujjóot woowu mu fàtte woon ndaxte xam nga ne julli ñaari sujjóot la kon ku bàyyi benn sujjóot daf ko fàtte rek bu ko fàttali ko gannaaw ba mu taxawee ne jot dafay dellu di aji jékki nag ba noppi ndaxte diggante ñaari sujjóot dafa am toogaay bu sujjóot ne eh, sujjóot woowu continué julleem bu paree sujjóot baada salaam loola jàngoon nga ko wante bu fekkee ne dafa jëkk woon jëkkaay yi toogaay yi sujjóot woowule booy rote di sujjóot nag dootul fa toog toogaay woowule ndax ko doon jàngaloo ne ku bàyyi ñaari sujjóot dafay rot sujjóot yi ko wante du fa toog ndaxte rot jëm ci ak sujjóot foofu kenn du fa toog nak noonu tamit dafay sujjóot ba salaam mooy dem geeg dellu si wi loolu lay continuer di wax ni wa in tazakkara ndem fàttaliku naa sujjóodu sujjóodu ba adaraf iraas yi gannaaw ba mu yëkkatee boppam wa mi ne rakkaatin ko ci rakkaat li ti yi nga xam ne taliyaa méngi na ko ana nu muy def Cheikh Abdourahman al Akhdari nee na képp koo xam ne aj fàttaliku la daal sujjóot gannaaw ba mu boppam ci rakka wa ko méng ah kon dafay continuer dafay eh, rakka wa ko ah xanaa li mu fàtte benn la ci ñaari rakk yi eh, mu fàttali ko ci rakk wa ko méng nu muy def ah déglu na te maa daa dafay continuer la solaati ci julle wante wala mu yarja du dellu mukk naan damay réparé sama sujjoot woo wule ndaxte gannaaw yëkkatiku boppam ci rakk wa ko méng ci la fàttaliku loolu le loolu mooy cause wi tax muy continuer wante du dellu wante na bàyyi xel ne rakk woowu yàqu na waaw kam ko yàqu na nu muy def net kam ko yàqu na ràkka wii mu yëkkati ak boppam te fàttalu ko sujjóot ci ginnaaw ba mu yëkkatee boppam ci ràkka waka ming na bàyyi xel ne ràkka woowu mooy mujjee nekk deuxième wa tamit wa alqaana saani ràkkaata sa ràkka jamej boobu muy ràkka njumte woowu wa zaada mu dolli ràkkaatin ab ràkka fi mawdi'a ca barab wa mooy ca barabu mu julli baa ni yen mbir moom mi aji jokku ko wa sajada mu sujjoon qabla salaam qabla salaam ana ana lu tax muy sujjoon qabla salaam nga dina la ko wax nee na in kaana dem nekk na ini bokk ci ñaar rakk yi njëkk ya wa tazakkara mu fàttali ko qabl baada aqdi thalisati gannaaw fasug ñetteelu rakk wa bu baax lay sujjoon qabla salaam maanaam daal naka képp koo xam ne fàttalikuwut sujjóot lu dut gannaaw ba mu yëkkatee bopp wa ci rakk wa ko méng e, rakk wi nga xam ne moo ko méng mi na rakk atleti tali e, rakka wu manki woo wule ah, bu mu dellu jëm ca na xam ne rakka naka képp koo xam ne fàttalu ko sujjoot lu jot gannaaw ba mu yëkkatee boppam ci rakk wi ko méng wante rakk woowu mu bàyyi sujjoot rakkaat naqs rakka wu manki la bu mu dellu jëm ci moom ana lu tax ngir paaseeg dabaatal gi nga xam ne paase na ko daata dabaatal nangam dafay fekk nag eh, paase wut wante bu paase nag dabaatal nangam dootu ma a nekk moo taxoon nga jàng ca masalo ñu ne képp ku fàtt na ak benn sujjóot mu fàttaloo ko gannaaw ba taxawee na jodd man na koy dabaatal ndaxte euh, dabaatal sujjóot wa faatagut wante ne bu fekkee ne rakk wu ko fasu na ndax dabaatal wa faat na loolay wax ne falaa yarjo ilay li fo li fawaati tadaaruk bi àqdi rakaatil muwaaliya boobaa dafay sànni rakka rakkaata sa rakka rakk wu jamaj woowule daf koy sànni mu dolli rakkaatan uura weneen rakka watteeku rakka woowule muy rakkaata naqs e, rakkaata sax woowu daf koy sànni ngir e, dolli weneen rakka e, watteeku rakka woowule bu baax nag mu sujjood sujjoodan qabliya ngir sujjooda qabliya kañ bu fekkee dafa nekk moom rakka wa mu sànni bokk ci ñaar rakka yi te fàttaliwu ko loolu gannaaw façon ñetteel wa kooku adama yi dëppoo nañ ci ne dollik rakka ak wàññeeku sóora ci ñetteelu rakka wa ci loolu mooy waral mu sujud qabla salaam comme que dafa li mu bàyyi dafa nekkoon ci ñaar rakk ya moo xam rakk wu njëkk wala rakk ñaareel mu dem ba ci rakk ñetteelu gannaaw ba mu yëkkatee boppam mu fàttaliku ne man kat benn sama ñaar rakk yooyu le moo xam wu njëkk wa moo xam wu ñaari la bàyyi naa fa benn sujjoot ah xam ne dafay continuer ci léew comme que ñetti rakk wi mu jàppoon na mooy nekk ñetteelu rakk na bàyyi xel ne mooy nekk ñaari rakk bu ma fàttee toog na toog taaya wante li mu toog taaya nag terewut eh, dafay sujjoot qabla salaam bu jëlee ba noppi nag dafay indiwaat weneen eh, rakka wattee rakka wu jameej wa rakk wu manqué wa bu noppee sujjoot qabla salaam ana lu tax muy sujjoot qabla salaam dafa ndaxte dafa boole wàññi ak yokk te jàngoon nga ne ñu ne wàññikat mu ëpp doole yokk kon nag comme que mu ëpp doole yokk képp gu def na ñaar yooyu ci julli dafay rotal eh, eh, yokk ga sujjoot qabla salaam balay wax ni li jitima ziyaada rakaatin wa nuqsaani suura min athalisa allati rajaat ngir olama yi dëppoo gi ñu dëppoo ci dolleeku rakkaw ak wàññeeku sóora yi nga xam ne nekk ci ñetteelu rakka yi nga xam ne mujj naa nekk deuxième rakka ngir xaayida ak taxlibu noqsaan di wax ni dëppoo nañ ci ne loolu ak yokk ak rakka la ci ñetteelu rakka yi nga xam ne mujj naa nekk ñaari rakka ndaxte koo xam ne dafa fàttali ko ak sujjóot gannaaw ba nga ba mu yëkkatee boppam ci rakk wi nga wi ko eh, dafay continuer julli te fàttaliwu ko gannaaw fasu ñetteelu rakkawo na bàyyi xel ne ñetteelu rakkawo mu woowu mooy mujje nekk ñaari rakk bu mu fa fàtte ak toog comme gën eh, mooy ñaari rakk te dafa jàppoon ne mooy ñetteelu rakkawo dafay toog bu noppee indiwaat weneen rakka e, jam e, jàngee ko rakka njuumte woowu mu juumoon te mu sànni ko loolu la alimay di wax ni dëppoo nañ ci ak dolli rakka ak wàññeeku ak zoro ci rakka ñetteel yi nga xam ne mujj naa nekk rakka ñaareel ngir qaayida woowule wi nga xam ne alimay dañuy wax ne taxlibu nuqsaan ala ziyaada kon sujjoot qabli lay sujjoot ak hadiisu yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne taxaw na tukkee ko ci ñaar rakka taarikal jilsa alwustaaniya te hadis jiitu woon na ñu jàng loolu wax ne daal ne képp koo xam ne fàttaliku sujjoot lu de gannaaw ba mu yëkkatee ci rakka wi ki méng eh, te mooy rakka naqs woowu rakk wu manki woowu bu mu dellu jëm ca ngir faat ak weesug dabatal te weesug dabatal mu ngi amee ci fasugu rakka wi ko méng boobaa dafay sànni rakka jamij woowule mu dolli beneen rakka wattee rakka jamij woowule de bu noppee nag mu sujjoot qabliya ndeem nekk na moom rakka wu mu sànni eh, bokk ci ñaari rakka ya te fàttaliwu ko gannaaw fasug ñetteel wa na bàyyi xel ne ñetteelu rakka woowule dafay mujj nekk ñaari rakka ndaxte benn ci ñaari rakkam la bàyyi woon ak sujjoot te fàttaliwu ko lu jot gannaaw fasug ñetteel wa bu fa fàttee toog na toog bu noppee indi weneen rakka watteek rakka wu yàqu wa bu pere sujjoot xabliya ndaxte dafa yokk si julli ga ndaxte julli gi mujj naa nekk rakka ñetteel rakk wi mu def ñaari rakk te waroo ci jàng fàttee ak saar fàttee rek la ci jàng eh, mu um, sujjoot xabliya غير قاعدة تغلب النقصان على الزيادة وحديث قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين تارك الجلسة الوسطانية لا wax ne wa in tazakkara ndem fàttaliku naa sujud sujud ba da rafi rasi gannaaw mi ne rakkaatin tukkee ko ci rakkaat li di woon xam ne tali am mi ngi na ko ana muy def damaa daan na continuer ala solaati si julle wante wala mu yarjee bu mu dellu wa alqaamu sànni rakkaata sahwi rakkaa njamit jamit woowu wule muy rakkaa njumte woowu wa zaada mu dolli rakkaata ab rakka fi mawdiiha ca barabu baaniyan mbirum aji jokk ko wa sajada mu sujjoot qabla salaam qabla salaam ana kañ lay sujjoot qabla salaam ne in kaana ndem nekk na la mu bàyyi muy la mu fàttali ko te muy sujjoot wa bu fekkee dafa nekk minal uula yey ne bokk ci ñaar ràkk ya wa tazakkara mu fàttaliku baada àqadi saalisati gannaaw fasum ñetteel wa la ko fàttaliku ndax xam ne benn ci ñaar rakk yu yàqu na ñetteelu rakk wu foog ne mooy ñetteelu rakka mooy mujjee nekk ñetteelu rakka ñetteelu rakk la eh, mu mujj nekk ñaari rakk mu fàttee toog na toog taay eh, mottali julli ga indi at weneen rakk wattee rakk wa mu sànni woon bu pare si doon xable salaam loolay wax ni wa sajjada mu sujjóot qabla salaam qabla salaam in kaana dem nekk na minal ulayayni bokk ci ñaar njëkk ya wa mu fàttali ko baada aqdi thaalisa li gannaaw fasug ñettilu noppi na ci loolu wa maana wa sajjada dina sujjóot baada salaam baada salaam kañ in lam takun nekkut minal ulayayni bokk ci ñaar rakk yi njëkk ya maanaam wa sajada na sujjoot ba'da salaam ba'da salaam kañ ne wa in lam takun dem nekkul min al ni ci ñaar njëkk ya ana cause bi taxoon mi sujjoot qabla mooy ne dafa nekk ci ñaar rakkete mu fàttalu gannaaw façon ñetteel wa de wante sujjoot ba'da salaam nag bu fekkee nag nekk ko ci ñaar rakk yi njëkk ya xanaa ci ñetteel rakk ñeenteel rakk wala nekk wala ñetteel rakk wala nekk mu fàttali ko gannaaw fasug ñeenteelu rakk wa ndax xam ne ñeenteelu rakkaam woowu mooy nekk ñetteelu rakkaam mu continué noppee indi wenn rakka wattee ko ñetteelu rakka wi nga xam ne yàqu na sànni ko mu noppee sujjoot ba salaam ndax di yokk rek la def ci julli loolu la wax ne wa maanaam na sujjoot baada salaam baada salaam wa in lam takun dem nekkun minal ulayni bokk ci ñaari rakk yi njëkk yi kooku masalam boppam aw kaani wala mu nekk min huma ci ñaari rakk yi njëkki sa léegi tamit baata salaam la war a sujjoot maanaam daal wa dina sujjoot baata salaam baata salaam in kaana dem nekk na min ci ñoom ñaar wante fii nag wa tazakkara mu fàttali ko qabla aqdi thalitha njëkk fasu ñetteel wa en même temps tamit euh, baada salaam lay sujjoot li anna surat naka saar wa wal julus ak togaay wa lam faatu ñoom ñaar bu fekkee julli ko ñeent la daal moo xam dafa bàyyi rukk na muy ponk muy farata ci farata julli mu fàttalu ko ci ñaareelu rakk wa wala dafa nekk ci benn ci ñaari rakk ya fàttaliwu ko fàttaliwu ko ba ci ñetteelu rakk wa njëkk fasul ñetteelu mu fàttaliwu ko ne man kat benn sama ñaari rakk yii bàyyi naa fa sujjoot wala bàyyi naa fa rukuwa wala bàyyi naa fa lenn ci ponk julli yi daal muy farata julli ya comme que ne ñetti rakk fasuwut na bàyyi xel ne benn ci ñaari rakkaam yi yàqu na daf koy sànni ñetteelu rakk wi nga xam ne ci la ko fàttaliku ko njëkk fasu ñetteel wa na xam ne ñetteel rakk woowu mooy mujjee nekk ñaari rakk wante na bàyyi xel ne këm nga mooy nekk ñaari rakkaam bu ma fàtte jàng sóora bu ma fàttee toog loolay wax ni li ànd na sóora naka sarwu wal juluusa ak toogaay ba laam ya fuuta faatuñ bu noppee nag continué julli ga e, indi weneen rakka watteek rakka wa mu sànni woon te mooy benn ci ñaar rakka yooyu e, e, manqué woon wala mu jame joon bàyyi ci benn ci farata ya kon nag dafay indi weneen rakka yokku ko ca su noppee sujjóot baada salaam loolu lay wax ne aw kaana wala mu nekk min huma ci ñaari rakk yi njëkk yi wante wa tazakkara mu fàttali ko qabla aqdi thalitha njëkk façon ñetteel wa li anna suura nag li anna suurata naka saar wa wal ak togaay lam yafuuta faatuñ faatuñ maanaa daal dina nekk moom sujjóot baadiya bu fekkee ne nekkut moom rakka alfasida rakka wu yàq woow yi nga xam ne moom la sànni bu fekkee nekkul minal ulayay ni bokk ci ñaar rakk yi njëkk ya kon nag sujudu baad yéen lay doon ko jeg baad yi lay doon ndaxte bu fekkee ne ci ñetteel rakk wala nekk mu fàttali ko ci gën ñeenteel wa gannaaw ba mu fasoo wala fasuwut eh, lu ci mënta am daal ñeenteel rakk dafay mujj nekk ñetteelu rakka bu continuer julleem indi wene rakka ko rakka wu yakku wu noppee sujud mbaade salam en même temps tamit mbaade salam lay sujud aw kaane wala mu nekk sax min humaa ci ñoom ñaar wa tazakkara mu fadlu qabil aqali saala njëkk fasu ñettel wa li anna ziyaada naka dolli wa ci ku mu musu ñaari xaale yi yëpp kooku dolli wu sell la bu mu bàyyi mukk nag ci ñettil rakk woowu te fasuwut bu mu fa bàyyi suuratan wala julusan bu mu fa bàyyi ñàkk jàng ak saar ak togay wa ngir qaida ak xadisu zil yadayni wa qiyaami alayhi salaatu wasalaam ila xaamisa ndaxte ñaari qaida yi mooy sukkandiku loolu wax ni maana dina sujjal baada salaam baada salaam wa in lam takun dem nekkul minal bokk ci ñaar rakk yi njëkk la mu bàyyi la mu fàtte te mooy ponk woogule mu fàtte te fàttaliwu ko lu dul eh, gannaaw fàttaliwu ko wala ndéem nekkut ci ñaar rakk ya njëkk ya bi maana ñetteel rakk wala nekk mu fàttali ko ci ñeenteel rakk wa na xam ne ñeenteel rakk moom mooy nekk ñetteel rakka mu sujjoot baada salaam aw kaana wala mu nekk min huma ci ñoom ñaar sa wante wa tazakkar mu fàttali ko qabla aqdi thaali njëkk fasu ñetteel wa li anna suurata a saar wal julus ak togay wa lam yefuta fàttuwut kon nag comme que fàttu eh, daf koy jàng toog fa taaya julleem indi weneen rakka wottee ko rakk wu sànni te mu juumoon ca bu noppee sujot baada salaam ah, loolu mooy masalam lam yafuutaa di leen jafewut daal masalam lam yafuutaa mooy ne képp koo xam ne fàttalikuwut sujjoot lu dut gannaaw ba mu yëkkatee boppam ci rakk wu ko méng kon rakka woowu rakkaat naqs lay doon bu mu dellu jëm ci rakka woowu ngir fàttak dabaatal ci sabab ak fasug ràkk wi ko méng dafay sànni rakk ak jamej woowule mu dolli ab ràkka weneen wattee ko ràkk woowu mu jamej mu juum ah, mu dal di sujjoot qabliya ndéem nekk na moom ràkka woowu mu sànni bokk ci ñaari ràkk ya wante fàttaliwu ko lu jot gannaaw fasug ñetteel ràkk woowu ku ko waa damay dëppoo nañ ci wa nuqsaani sur muy dolleeku rakka ak wàññeeku saar ci rakka wu ñetteel wi nga xam ne mujj naa nekk ñaareelu rakka loolu mooy waral mu sujjoot qabliya kooku qaayida ak taxlibu nuqsaan ala ziyaada moo koy eh, tegtal wa xadisu qiyaam rasulillahi sallallahu alayhi min rakkaatayni taarika jilsatal wustaaniya ah noppi na ci loolu dina nekk ak sujjoot dina sujjoot sujjoot baada salaam bu fekkee nekk ci ñaari rakk yi njëkk bi maane si ñetteelu rakk wa la nekk bu fàttali ko si ñeenteelu rakk wa kon ne ñetteelu rakk mu valable te baaxut ñeenteelu rakk mooy nekk ñetteelu rakka mu continuer mu indi beneen rakka wu jàngee ko rakka wu ñetteel wu mu sànne bu nappee sujjoot baada salaam en même temps dina sujjoot baada salaam bu fekkee dafa nekk ci ñaari rakk yi njëkk ya wante mu fàttalu ko njëkk façon ñetteelu wa comme que na ñetteelu rakk fasogul na bàyyi xel comme que ñetteelu rakka am wii mooy mujjee nekk deuxième rakka am te benn ci ñaar rakkaam yi njëkk yi am na wu ci yàqu te dafa bàyyi benn ci farata mu fàttali ko ñetteelu rakk wa njëkk façon kon nag mooy nekk ñaareelu rakkaam bu mu fàtte jàng suura bu mu fàttee toog de léegi dafa jàppoon ne mooy ñetteelu rakkaam wante mooy mujjee nekk ñaareelu rakkaam comme que ne saar wa ak toogaayoo fàttut na ko fa jàng bu noppee sujjoot mbaa des la noppi na ci lool nee na waman sallama képp ku ko sëlman a chàkkan di aji sikk sàkk fi kamaadi salaati ci mat ak julleem batale yàqu na salaatu julli képp koo xam daal aj sikk la eh, muy sikk sàkk julleem gi mën naa matut eh, lu mu waroon def comme que mu ngi sikk naan sama julli mën naa matum ñetti rakk la am wala ñeent dafa waroon tabax ci lu gën a wóor def ko ñett rakka indi weneen rakka waa far mu sëlmal julleem yàqu mooy nak aji julli ji daal dem sël mën a di sikk sàkk di dénga déngal ci mat ak julleem julleem yàqu na ngir bàyyi gi mu bàyyi qaidatul bina alal yaqin mooy réglu tabax ci lu fa sikkam ak dénga déngam ci bàyyi rakka wala bàyyi ak rukkunu lool mooy yàq julleem ga غير حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا isnatayni salla am thalaasan fal yulqi shakk wal yabni ala yaqin kooku anas ibnu malik nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na isa shakka ndem sikki na ahadukum kenn si yéen fii salaatin si julleem fa lam yadri xamul isnatayni ndax ñaar rakka la am salla la julli am salaasa wala ñett la julli fal yuqil na sànni a shakk sikk wala yabni mu jokk ala yaqin ci kóoliteem kam kan loolu la ko yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon te deful ko mu salmal ah julli ko yàqu na kooku ba yàqee ma ko ndaxte li anna la tubra illa bil yaqin ndaxte ak kóolite ndaxte li anna naka lu nekk ci baatam boobu la tabrox du deñ bi yaqin lu de ci yaqin rek moo koy dindi wala yaqinu maa chakk te kóolite du sikk kon fa salaamuhu qabla zawali chakki fi kamali salaatu wa mufsidun mufsidun لا يوقف شي عبد الرحمن الله قدر يدوخني ومن آه، سلم كيف بقى سلمنا الشعك كان داعي عجيز كزاك في كمال صلاة جمعة بجلي بعد يقون صلاة جلي مقو نبنا تلول مغي جانجلي بينهم مسألة من وسا ونجوم في صلاة القضاء تجلي جوخ في كساو انك نجوم في صلاة الأداء تجلي جوخ كو قمنا دال دفع من برق جلي masalan julli wu tusubaar di ko fay ak ki nga xam ne dafay julli euh, tusubaar ci waxtoom di ko joxe ah, bu ñu juumee ñoo yem atte bu fekkee euh, ki nga xam ne dafay julli joxe ci waxtu wa yokk na si julli baada salaam day sujud wàññi na si julli qabla salaam day sujud en même temps kii julli ak fay bu yokkee baada salaam day sujud bu wàññi qabla salaam day sujud da lay wax ne wa sax u njuumte fii salaatul qadaa ci julli fay ka ni ko njuumte fii salaatul adaa ci julli joxe kon na ñoo yemaat ah noppi na ci loolu maanaam daal naka àtteeg su njuumte ci joxe julli ci waxtoom kam àtteeg njuumte ca fay ak julli gannaaw faat julli ga ñoo yemaat la lay wax ne an axka an axkaama sujudi sawi sujud ak njuumte nda fa joxe julli fi waxtaa ci waxtoom ka axkaami sawi kam atteeg njuumte nda qadaaya fa fayam baadal fawaati gannaaw faatig julli googule ñoo imaat loolee Cheikh Abdourahmane al Akhdari di wax ne wa sahwu njuumte fi salaat al qadaa ci ka sawi ni ki fi salaat al adaa ci nee na wa saxwu njuum te fil naafilati ci naafila ka sawi kam njuumte fil farid ci julli farat njuumte ci julli naafile ka niki njuumte fil ci julli farat lu may na juróom benn masala dong dong kon nag eh, ndonge wi juróom benn masala yooyu la boo ko xasee ba note jàpp ko rek bu ko moyee eh, lépp loo xam ne juum na ko ci naafile ak eh, farata ñooy yemaat wante bu fekkee nag dugg ci juróom-benn masala yi le la lay wax ne wasaahu njuumte fi naafila ci naafila kasawi ni ki njuumte fil farida ci farata ñoo yem atte bu fekkee ne daal bokk ci juróom-benn masala yi la muy la koy war ci farata mu koy war ci naafila la koy war ci naafila mu koy war ci farata illaa dulu fi sitti masaila lu may ci juróom-benn masala juróom-benn masala yi neen muy ci njëkk mooy alfatiha mooy fatihatul kitab wa suura ak saar wa sir ak yelu mooy jàng ndànk wal jëri ak biral te mooy jàng ca kaw wa ziyaada rakkaat ak dolli rakka muy dolli farata wa nisaani baadil arkaan ak fàttali leen ci ponk yi muy leen ci farata yi intala ndem yàgg na daa am na di la ko farafànceel di la ko leeralal mooy juróom benn masala yi benn wu nekk nee na fa man na si na alfatihatu fàtte yi ci njuumte ci naafil ak njuumte ci farat nee na fa ma na ci képp ku fàtt ne alfatiha te jàng fatiha fi naafila te ci naafila wa tazakkara mu fàttali ko jàng fatiha woogule gannaaw rukuwa lu muy def tamaa daal na continuer nga naa ko bu continuer ba noppi lu mu ne wa na sujjoot qabla salaam qabla salaam ku doon naafila daal E waroon jàng fàtte fàtte fàtte mu fàtte ko gannaaw ba mu rukkoo xanaa rakk wu njëkk dafa waroon jàng fàtte teg ci saar mu e, dal suura rek fàtte fàtte gannaaw ñaari rukkoo ba siggi ay man nga sama rakk wu njëkk wii saar rek laa ci jàng ñu ne ko a ah, continuer ba pare sujud qable salaam maanaa daal képp ku julli na ñaari rakka ci misaal mu fàtte fatiha ci rakk wu njëkk wa mu fàttalu ko gannaaw fasu rakk wa bi maanaam gannaaw fasu rukk wu ñaaril wa dafay continuer si julleem mu jàngee wàññeeku woowule ak sujudul qabliya li xifatiha fi naafila ngir woyefam ci naafila fatiha dafa nekk lu woyef ci naafila kooku nag bi xilaafil farida loolu lay wax ne uute naag farata nag fa innahu bu doon farata yulqi dafay rakka woowule rakka wa yasiru mu dolli uxraa weneen waaye tamaada mu continue wa yakun mu nekk sujoodu sujoodu kama zakar naa comme niñ la ko tuddee fii taarika sujood ci ko bàyyi sujood comme niñ la ko jàngale woon léegi ci masala yi njëkk yi maanaa naka atteeku fàttaliku fatiha gannaaw ak rukkuwa ci naafila kooku dafay wuuteeg atteem ci farata ndaxte bu fekkoon ci farata la dafay continuer mu sànni rakk ak jëmej woowu mu dolli ak rakka ci barab woowu yi nga xam ne e, faat ko ak dabaatal ci fasug rukua topp mu sujootal ñeel jëmej woowule bu fekkee nag la mu fàttaliku noonu ci ñaar rakk yi njëkk la nekk wante mu ngi ko ci ñetteelu ràkk wa ci gannaaw façon ñetteelu ràkk wa bu mu fàttee toog ndaxte ñetteelu ràkk wa mu mujjee nekk ñaari ràkkaam bu noppee mu sujjoot xabliya wante bu mu fàtte ne e, indi weneen ràkka jangee ko ràkka wu jameet mu sànni sujjoot xabliya ndaxte dafa yokk si julli ko wàññi ci julli ndaxte ñetteelu ràkk wi mujjee nekk ñaari ràkka te mu waroon fay jàng saar te jàngut fa saar mooy wàññi ga te bu julli mu dinaa nekk juróomi rakka te qaayida dafa waxoon ne képp ku yokk na julli wàññi julli ñaar yëpp gaar la ci julli dangay ngay rotal eh, jaanibu ziyaada eh, indi nag jaanibu naqsi eh, sujootal qabli bayi baadiya comme niñ la ko léegi ci ku bayi ak sujoot kooku dafay sujoot qabli bu fekkee ne la manqué le la sànni dafa nekk benn ci ñaari rakk ya mu fàttali ko gannaaw fasug ñetteel rakk wa wi nga xam ne tàbbi na ci maqaam ak mu mujjee ki ñaari rakk wa ci ak saar ci eh, ci ak natteel wàññi waaw ci ak saar kon nag dafay sujjoot qabliya tagliban li nuqsaan ala ziyaada ndaxte yokk ak wàññi fu ñu daje wàññi ga dafay not ak yokk ga kooku xaayida moo ko wax en même temps tamit ngir xadisu nuqsaani eh, sajda al wustaaniya fi salaati alayhi salaatu wante dina sujjoot baada salaam nag bu fekkee nekk ci ñaar ràkk yi njëkk yi bi maanaam si ñetteel rakk wala nekk fàttali ko sa ñeenteel rakk wa nañ jàpp ne ñeenteel rakk wam yii mooy nekk ñetteelu rakkaam bu noppee indi wenn rakka jokkee ko rakka wu mu sànni bu pare sujud baada bu fekkee dafa nekk ci ñaari rakk yi njëkk ya mu fàttali ko njëkk fasug ñetteel wa na bàyyi xel ne comme que ñetteel rakkaam yi mooy mujjee nekk ñaari rakkaam bu mu fa fàttee jàng saar daa dara ñetteel rakk fasogut bu mu fa fàttee toog taay ndaxte ñetteel rakkaam yi mooy mujjee nekk ñaari rakkaam bu pare sujud baada salaam loolay wax ni foo mannette kippiku fatiina alfatih al fatiina finnaan fi la wata zakaraa mu fatiina rukoo baadha rukoo gannaawu rukoo tamma daannu kontiine wasajja mu soojja qabda sallaam qabda sallaam lolii mai atte ku bayyi fatiina finnaan fi la ee mu fatiina gannaawu rukoo dafay kontiine wupere sojja qabda sallaam xam nga loolu akka akka farat bu farata dafay sani wowu rakkoo wumuu jameet yokku wina rakkoo. continue ak juleem bu pare sujjoor qabliya bu fekkee dafa nekk nag ci ñaari rakk yi njëkk ya mu fàttali ko si ñetteel rakk wa gannaaw fasug ñetteel wa eh, bu mu fàttee toog ndaxte ñetti rakk mooy nekk ñaari rakkaam bu pare sujjoor qabliya ndaxte dafa yokk ak wàññi te bu mu fàttee indi weneen rakka jokkee ko wa mu sànni bu fekkee na eh, dafa mm, mm, war a sujjoot baadiya kañ lay sujjoot baadiya bu fekkee ne nekk ko ci ñaar rakk yi njëkk ya ci ñetteel rakk walla nekk fàttaliku ko sa ñeenteelu rakk wa eh, dafay compter day jàpp ne ñeenti mooy nekk ñetteelu rakk am ndaxte ñetteelu rakk wu valable baaxut ndaxte dafa bàyyi benn benn ci faratay julli ya kon nag dafay bu noppee indi weneen rakka jokkee ko ñetteelu rakk wa sujjoot baada salaam bu fekkee ne dafa nekk. loolu ci ñaar rakk ya wante mu fàttali ko njëkk façon ñetteelu rakk wa kon nag comme que daf ko fàttali ko njëkk façon ñetteelu rakk te ñetteelu rakk moo nekkoon ñetteelu rakkam ci mu wante benn ci ñaari rakk yi dafa am bu ci kon ñetteelu rakk moo mujjee nekk ñaareelu rakk bu mu fa fàttee jàng saar ak toogaay wa bu noppee sujud baada la loolu wax ne bi xilaafil fa inna dafay sànni tilka rakka wo wala rakka way zid mu dal uxra winen way ta maada mu kontine way yakun mu nekk sujudu sujudu kama zakar naa comme nañ ñu ko tuddilee léegi fii taariki sujud ci ku bàyyi sujud noppi na ci loolu mu ngi lay indil ñett ñaareelu masala wu nga xam ne njuumte ci naafila ak njuumte ci farata ñoo yem atte lu may ci juróom benn masala indil na la masala wu njëkk mu ngi lay indil ñaareelu masala wu ak ñetteelu ak ñeenteelu wa loolu lay wax ne wa man nasiya képp képp ku fàtt ne ci saa saar ci naafile gën mu fàttalu gannaaw uh, rukkoo dafay continuer sujjóot waaru ko ca képp ku fàttalu ko ne ak biral bi maanaam naafile bëccëg yi dañu sopp ko jàng ndànk naafile guddi dañu sopp ku ko biral ci kaw koo xam ne dafa waroon biral naafila mu dem jàng ko ci suuf xanaa wàññi na ku waroon biral naafila ku waroon eh, yelu naafila mu dem jàng ko ci kaw xanaa yokk na ñaar yooyu bu ca mënta am ret ci naafila bu ko bu ko fàttalikoo gannaaw fasog rakkaw dafay continuer te sujoodu ko ci war loolay wax ne wa mën na si képp ko fàttali na surata saar nga ne kaa ah, mi ne awil jër wala biral bi maana naafila bëccëg dañuy sopp koo jàng ci kaw ku ko jàng ndànk naafila guddi dañuy sopp ku ko jàng ci kaw moom naafila bëccëg yi moo waroon ko jàng ndànk dem jàng ko ci kaw xanaa yokk na mu fàttali ko gannaaw bu mu rukkoon a aman ah, kat sama rakk wu njëkk wi ci naafila dama waroon jàng ndànk te maa ngi ni jàng ci yokk naa ci jullit ñu ne ko àbbul ah, su jonnat bu fekkee naafila jàng ci kaw mu jàng ndànk gannaaw ba mu rukkoo min ay man ah, kat rakk wu njëkk wi dama waroon jàng ci kaw te dama jàng ndànk wàññi naa di ñu ne ko àbbul su jóot su warul waaw tamit awil jëhr wala biral awi sirra wala yelu fi naafila ci naafila wa tazakkar mu fàttali ko baada rukuu gannaaw rukuu tamaa daan na continue wala sujuda ali di sujudi ko ci war kooku nag bi xilaafil farad utee naa farat xam nga ne bu doon farat du def loolu le du euh, wax duñ wax mukk na wala sujuda ali maanaam daal képp koo xam ne fàtte na ak saar wala ak biral wala ak yelu ci naafila mu fàttali gannaaw rukuwa dafay continuer wala sujudaali sujud du ko ci war ndaxte bépp ci benn ci ñetti masala yi mooy saar ak biral ak jàng ndànk ci naafila kooku minal fadail dafa bokk ci ngeneel te wala sujud fi tarkil fadila dee sujud di war ci ku bàyyi ak ngeneel bi xilaafi nisiyaaniya wuute na ak fàtte na ci farat bu doon farata nag fa innahu kama mar yasjudu ba'da salam fay sujud ba'da salam kep ko fatna na ak suura ci ak julli farata fay sujud ba'da salam da wagn na julli ko xamne da fa waroon julli subar jang ko ndank dem jang ci ko yok na julli da fay sujud yok na si julli dafay sujud ba'da salam moo kon nak dina sujud ba'da salam ci ko xamne da fa bayyi ak yelu ngir ak dolli dina sujjoot qabla salaam ci ku bàyyi suura ak biral li nuqsaan ngir wàññi képp bu ko xam ne daal dafa waroon jàng saar bàyyi ko wàññi na si julli ga ku waroon ak biral eh, ca kaw muy julli eh, timis ak gee waroon jàng ci kaw ñaar rakk yi njëkk yi mu dem jàng ko ndànk wàññi si julli ga ku ne dafay sujjoot qabla salaam loolu lay wax ne wute na ak farata bi xilaafil farida waaw bu doon farata nag maanaa bi xilaafil nisyaani na fil farida kon بعد salaam fi ترك السر للزيادة dina yasjud baada salaam dina sujud baada salaam ci ko bàyyi ak biral ngir yokk wa qabla salaam dina sujud qabla salaam fi tarki suura ci ko bàyyi ak saar wal jëre ak biral li nuqsaan ngir wàññi noppi na ci loolu mu ngi lay jàngal juróom-benni masala wo ci njuumteeg naafila ak njuumteeg farata Eh, yem gi ñu yem ci ak àtte lu may juróom benn masala indi na la ñeent masala yi indi mu ngi lay jàngal juróomeeli masala wu juróomeeli masala mooy waman xaama képp ko taxaw ne ila salisa dañ jëm ci ñetteelu rakka fi naafila ci naafila fa in tazakkara mu fàttali ko qabla rukua bi maanaam njëkk fasug rakka wa kooku raja dafay dellu wasajal mu sujud baada salaam baada salaam وإن أقرب فصلنا الثالث ونيتلونا تما هذا كنتن وزاد مدل الرابع نركع نيتل وسجل مسجد قبل السلام قبل السلام قام لي بخلاف فرو ودينا فرد فإنه بدون فرد يرجع فيدل متى ما ذكر سأسكو فاتلوك ويسجل مسجد بعد السلام بعد السلام كوكرا في سجل بعد السلام لكن كيف koo xam ne taxaw na jëm ci ñetteelu mu fàttali ko njëkk fasagu rak rukkoo ba kooku dafay bàyyi rakkaw nag rot ah dem sëlmali ndaxte naafila dañuy sopp ñaar rakk yoo am sujjoot sëlmal moom kan mu am ñaar rakk war a sëlmal jóg dem si ñetteelu rakk wo njëkk fasu ñetteelu rakk mën a ah, am man kat dama waroon toog sëlmal wante sëlmalu ko kon dafay rot. dellu bay rakka woowu rot sëlmal bu noppee nag mu sujjoot baada salaam moo tamit ne mu sujjoot baada salaam ngir ak dolli gi mu dolli tam ni nga xamee ne romb nañu atteem ak la koy tegtale bu fekkee na ñetti rakk dafa façonat sañ sañ ta dog mukk rakka woowu dafay continuer rek dolli weneen rakka muy dolli ñeenteel rakka bu noppee mu sujjoon qabla salaam naka atte wu atteem foofule mooy attee ku fàtte as-sajdata al-wustaaniya loolu moo tax muy sujjoon qabla salaam comme ni nga xamee ne romb nañ ak dalilam ah, wute na ak bu fekkee lu mel noonu moo tàbbi ci ak jullit farata koo xam ne da doon julli ak tusubaar wóor na ko julli mat na am na ñeent rakka muy bugg a jëm juróomeeli rakka waxtu wu ko fàttaliku rek la koy dog dellu ci sëlmal bu fekkee dafa taxaw jëm ci rakka woo xam ne rakk dolli la ci julli farata dafay dellu waxtu mu ko fàttaliku mu sujjat baada salaam ngir ak dolli ngir qaida hadisul qiyaami alayhi salaatu wasalaam ila xaamisa kama sabax kam niñ ko jiitu kon daal eh, bu fekkee farata la képp ko julli na farata eh, ñeent rakka jëm ci juróomeel rakka mu fàttali ko man kat sama julli gi man na te rakka wii rakka dolli la dafay dellu eh, bu noppee sujjoot baada salaam noppi na ci mu ngi indi juróom benn mm, juróom benn masala wi nga xam ne Euh, moom jullik na juum ci naafila ak juum ci farata ñoo yem atte lu may juróom-benn masala mu ngi indi juróom-benn masala waaye woo mën na see képp ku rukk na ak ponk ci naafila lu mel ne ak rukuwa ak lu mel ak sujjóot te fàttaloo ko ba te mu yàgg kooku fa laa iaada ali bi xilaafil farid kon nag du baamtu fa naafila woowule koo xam ne daal da julli naafila moom kat ba mu julee naafila bee sëlmal lu yàgg mi ne man kat sama naafila wee ah rukkoo moo andi sama rakk wu njëkk daa rukkoo ma wala sama rakk wu njëkk wa sujjootuma te fi mu ko fàttalikoo gannaaw ba mu sëlmal te yàgg na kooku fa laa ihaada alayhi baam tudd ko war ci naafila woowu la xam nga bu fekkoon ne farata leen kooku yu idaa abadan daf koy baamte ba faw da lay wax ne bi xilaafil faridi ute naak farati fa innahu bu faradi yu iiduhaa daf koy baamu abadan ba faw maanaam daal naka képp gu fàtt na ak ponk ci ponk naafile yi lu mel ne ak rukkoo ak sujjóot fàttaliku ko bay sëlmal te mu yàgg kooku fa la iaadaali baamtu du ko ci war ndaxte naafile la tuqda defuñ ko fay wute naa bu fekkee lu mel na moo tàbbi ci ak farata bu fekkee ne moo tàbbi ci farata daf koy fay ba faw غير حديث المسيء صلاته غير حديث المسيء صلاته حيث ترك فيها ركنين أساسيين الاعتدال والطمأنينة حديث المسيء nga xam ne ki doon dille bàyyi na ñaari ponk yoo xam ne yu cosaanu la lu mooy ak yemoo ak dal wa taala tam yàgg ata jaa ba dikk wa sala musalman fa qaala wasallam mu nuyu fa qaal moo lawu ñëw la ko alayhi salatu wasalam baada raddi gannaaw moom ko delloo ak nuyoo te muy ko waaleykum asalaam wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli te yonent bi sallallahu alayhi ngi toogoon ci jàkk ji kon nag fàttali ko ak ponk ci julli farata ci lu jege moom ah dafay xarma rek mu indi la mu fàtte eh, bu noppee sujud baada salaam ngir qaayida xadiisu zil yadayn ngir xadis li day woo wule yi nga xam ne an muttafaqu alayhi kon nag dongay maa ngi lay résumé dar ci yi nga xam ne moom lañ am tey incha allah ci al akhdar yi mooy mooy ne wa in zakara ndem fàttaliku na sujud ak sujud baada rafi rasi ginnaaw ba mu yëkkatee boppam mina rakkaati tukkee ko ci rakkaati bi nga xam ne tali am méng na ko tamaada na continué ala solaati julleem wala mu yarje te bu mu sanni rakkaata sa rakka ci njuumte woowu wa zaada mu dolli rakkaata ab rakka fi mawdiha ci barabu baaniyan mbir mi aji jokku ko wa sajada mu sujud qabla salaam qabla salaam keññat in kaana ndem nekk na minal ulayni bok ci ñaar rak yi ñek ya wa tazakkaru mu fàttaliku ko ba'da aqdi salisa gannaaw fasu ñettel wa wa ba'da gannaaw fasu ñetteel wa noppi na ci ma sal ak bopum la maanaam wa dina sujjoor ba'da salam ba'da salam way lam takun dem nekkul minal ulayni bokk ci ñaari rakk yi njëkk ba léegi dina sujjat baada salaam aw kaana wala mu nekk min huma ci ñoom ñaar wa tazakkara mu fàttali ko ba qabla aqdi thalithati njëkk fasu ñetteel rakk wa li anna suurata naka saar wa wala julusa ak tugaay wa lam yafuuta ñoom ñaar noppi na ci loolu mu lay jàngal masala wa man sallama képp ko salmana chàkk ndi aji sikki sàkk fii kamaale solaati ci mat ak julleem batalan yàqu na solaatoo julleem koo xam ne daal dafa sëlmal sikk sama julli gi mën naa matum ba mu sëlmal ah julleem nga yàqu na noppi na ci loolu nee na wa saxu njuumte fii solaatil ci julli ak fay ka sawi ni ki njuumte fii solaatil aada ci julli joxe ñoo yem atte naka atteeg njuumte ci naka atteeg sujjoot ak njuumte ci joxe julli ci waxtoom ni ki àtteeg njuumte ca fay julli gannaaw fàttem noppi na ci loolu وسهو نجومت تفي نافلة النافلة كالسهو لكن جوم تعرف في الفريضة تجف فجل فرته إلا ذري في ست المسائل اللي تجرم بين مسألة مي الفاتحة فاتحة والصورة أكسار والسر أجيل والجر أكبر والزيادة أكدل ركعة ركعة والنزان أكفات فات بعد الأركان والنزان بعد الأركان فات اللي نجاي بونك إنتال عندما يجن فمن نسي كيبوك فاتنا الفاتحة فاتحة في النافلة النافلة wa tazakkara mu fàttaliku baada rukua gannaaw rukua te maa daan continuer wa sajid mu sujud qabla salaam qabla salaam kooku bi xilaafil faridati uti naa farata fa inna bu doon farata yulqi dafay sànni tilka rakka wala rakka wa yajid mu dal uxra weneen wa itam maa daan mu continuer wa yakun mu nekk sujud sujud kama zakarna këm niñ ko tuddee fee tarik sujud ci ko bàyyi sujud ci loolu wa man nasiya képp ko fàttali بعد الركوع gannaaw rukuux tamaadaan ni konte wala sujud sujud adadi ko war bi xilaaf al farida uute naag farat noppi na ci loolu ومن قام كيب كو تاخونا الى ثالثه دي نمتي نيتال ركع في نافل دي نافل فان تذكر من دين فاتلكونا قبل الركوع نجك ركوع رجعنا دل وسجد مسجد بعد السلام بعد السلام وان عقد بفصلنا الثالثه ونيتالونا تما دان كنتن وزاد مدل الرابع ركع نيتالو وسجد مسجد قبل السلام قبل السلام كوكو بخلاف الفرد اوتناك فرد فانه بدون فرد يرجع في دل متى ما ذكر سازوفات لكو لول رادفا يدلو ويجر مسجون بعد صلاة بعد صلاة نبني كله وما ركن ان بانكو من النافلة تي النافلة ركن ان فرطر من النافلة تي كروكو لمن ركوا وزيد سجود ولم يتذكر فاتلوك حتى سلم بسلبا وطالة تمجاق فلا إعادة ديت بامتو علي الكور بغلاف فرد أوتنا فرطة فإنه بلان فرطة يعيدو عدف كي بامتو أبدا بفو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه yéen ñi la may dégg topp dafa ñu ko defal leen ko alhamdulilah wa daawaana wa axiru walhamdulilahi min xiin ilaa xiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu